Moussa Poudio daf ko ni woon man lébu laa dana da nga bëre di nga xeex di nga def lépp. jàpp naa ba ci poxotaan ya ba ci poxotaan ba ah doole. daan na ko kottum biti kottum biti. daan na ko jël bu rëy. kottum biti. daan na ko daan na ko jël bu rëy rëy. kottum biti. waaw ah, waaw. ko bàyyi boobu bëre. ko daan kottum biti waaw waaw ko daan. defe naa loolu mooy.